askanu Cees yëpp e, ci ngoon gi nga xamante ni ñu ngi fi daje di waxtaan ak askanu Cees ci dundunu dëkk bi dundunu institution municipale bi rawatina mbir boo xamante ni ñëpp la concerné bépp citoyen bépp administré rek dëkk bi muy wut këyit ñu koy wax état civil moo xam kayitu juddu la moo xam certificat de mariage la moo xam acte de décès la moo xam résidence la ak yeneen ngeen xam ni bii mooy centre bi gën a rëy ci dëkk bi ñu wax ñu tudde ko centre principal naam am na ay centre secondaire mais li fiy ñëw par jour di wut si ay këyit dafa bëri macha allah ba léeg-léeg sax administration bi fiy liggéey dafay dem ba déborder waaw ay jafe-jafe ñi fi ñëw di wut këyit demande yi traitement bi délai yi parce que ñi ci bëgg ñi ci ëpp dañu bëgg su ñu ñëwee ci jour bi ñu jot seen këyit wala le lendemain këyit bi ñuy wut ñu mën ko jot léeg-léeg sax am na ay Cees yoo xamante ni tey euh, dundatuñu Cees Cees la ñu juddoo mais ña ngay dëkk Kaolack ña nga dëkk Jurbel ña nga dëkk dakaar dañuy xëyee fa ñu dëkk fa ñuy yeewoo fajaru ñëw Cees wut si acte de naissance wala ak ñu koy wutal seen doom wala lu mu mënti doon léeg-léeg dañuy am jafe-jafe parce que léeg-léeg dina ñëw ci bis bi duñ ci jot ñu delluwaat fa ñu dëkk léeg ñu ñëwaat yooyu yëpp dafay bëri na ay coow yu baree baree baree bari da koy indi euh, ci état civil booleeg aussi la fraude je pense que il faut pas avoir peur des mots fraude bi nga xamante ni am na ci c'est pas tous les agents il faut il faut être honnête il rendre hommage agent yu honnête dévoué engagé yuy liggéey ci état civil ay agents lañ yu bëgg seen réew yu fonk seen liggéey léeg-léeg demande bi dina métti nit ñi agressé leen saaga leen mais ñu fonk seen liggéey mais ci biir ci biir am na ay pomme de terre yu nëpp yoo xamante ni ay dégâts yu rëy rëy lañ indi ci dëkk bi c'est ça la vérité des faits dafa am yoo xam ne bëgguma ci sori eh, am nañ ci ay cas yu bëri ay fraude ay agent yoo xamante ni donc mais agent bu ñu ci jàpp rek sanction bi wàcc na waaw agent suñu protéger agent am na aussi lu ñuy wax ay courtier courtage boo xamante ni c'est des gens yoo xamante ni liggéeyuñ ci état civil mais chaque jour ñu ngi fi am na lu bëree bëri xeex nañ ko ci lu bëree bëree bëree bëri xeex naa ko ci bi ma ñëwee léegi évidemment am na lu des Sénégal moom euh, am na yu naqaree xeex yu bëree bëri xeex nañ ko ci en lu ci feeñ rek jël nañ sanction am na ci ñoo xamante dañu leen jàppoon sax yóbbu leen police yooyu yëpp def nañ ko ci mais assainissement boobu su ngeen xoolee état civil aussi li muy dugal ci xaalis parce que timbre yi ñuy jaay li muy dugal ci xaalis aussi ren li état civil dugal daaw yaakaar naan mosu koo dugal ci histoire ville bi mosu ko dugal ci histoire ville de Thiès xaalis boobu bu toll noonu loolu lépp ci assainissement mais teewul problème yaa ngi fi je pense que grève bi rek wane na ni je pense que il faut une solution pertinente efficace ci état civil boobu ba léegi am na ay programme yu bëri yu fi jaar gouvernement du Sénégal am na ay programme yu ñu yu ñu jaay ak Union européenne wax ni dañuy dématérialiser état civil mais xaar nañ ko booba ba léegi gisaguñ ci gisaguñ ci lu dëgër gisaguñ ci lu am solo moo tax euh, ñu jël suñuy responsabilité euh, reprendre le processus de dématérialisation de l'état civil de, de la ville de Thiès avec benn plateforme bu mag euh, de gestion municipale euh, ak différents logiciels logiciels yoo xamante ni dinañ ñu jàppale ñu moderniser au-delà de l'état civil ñu moderniser notre administration notre administration municipale mu gën a performante mu gën a efficace waaye aussi mu gën a méngoo mu gën a méngoo ak jamono ñu jënd ay logiciels lu mat ay dix yoo xam dinañu jàppale ci liggéey boobu ëpp solo mooy euh, am na logiciel euh, sur l'état civil am na budget am na fiscalité locale administration générale ressources humaines gestion du domaine gestion indicateur du PACASEN comptabilité des matières reporting euh, les et performance mais bi nga xamante ni logiciel yooyu yëpp ville bi jënd na ko mais bi nga xam moo ñu fi dajale tey ëpp solo mooy état civil ci état civil boobu mais pour liggéey boobu mën a am dañu waroon a renforcer wu en équipement informatique euh, ñu jënd ay machines jënd nañ dix machines MacBook déjà dix machines yoo xam ne ville bi moo ko jënd euh, pour que liggéey boobu ñu mën ko ñu mën ko doxal ni ko war a ñu jënd aussi trois machine all in one euh, muy ay machines yu am doole yoo xamante ni aussi ville bi jënd nañ ko un ordinateur portable et deux imprimantes yoo xamante ni ay imprimantes yoo xam aussi jënd nañ ko ak onduleur ay antivirus pour que liggéey boobu mu mën a dox ci ni ni gën a ni mu gën a efficace pour ANCAR liggéey boobu aussi euh, xam ngeen ni dafa laaj ñi enregistré gis ngeen registre yi ne ci biir yëpp ay registre la yoo xamante ni yëpp dañ ko war a enregistré muy liggéey bu bu yàgg boo xamante ni moo tax euh, am na benn école euh, institut supérieur des sciences en information en informatique et gestion boo xamante ni ñoom ñoo ñuy jàppale eh, ci ci liggéey boobu dinañu mettre à notre disposition deux groupes de dix deux groupes de dix yoo xam ne dañuy relayer wu ñii ci ngoon gi ñii ci ñii ci suba gi euh, yoo xamante ni euh, chaque personne rek chaque jour rek deux dinañ mën a euh, deux registres par personne dinañ mën a saisir deux registres par personne si tu deux groupes de dix ku ci nekk dina mën a liggéey deux registres par jour ça donne deux 1200 actes 1200 actes par jour et 60 mille actes le mois 60 000 actes yaakaar naa bu ñu ko bu ñu bu ñu engagé woo ci 60 mille actes par mois fekk 3 4 cinq mois yaakaar naa ni liggéey boobu euh, problème bi ñu am ci état civil dina féete ci dina féete ginnaaw et pour le moment rek am nañ 57 mille actes yoo xamante ni enrôlé nañ ko 57 000 yoo xam ne enregistré nañ ko yoo xamante ni. dina gën a yombal dina gën a dina gën a yombal liggéey bi donc voilà euh, de manière générale situation bi nga xamante ni moom moo ñu fi dajale woon tey pour que ñu dématérialiser état civil pour que liggéey bi gën a efficace ak le site web bi nga xamante ni disponible na le site web cest à nit mën na bañ a nekk Thiès nga def demande bi en un temps record nga mën a jot nga mën a jot acte bi nga xamante ni moom ngay moom ngay demander donc wala un peu là